aousubillahi min alsheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xeyra xadimihi wa sallama taslima bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balu xaq di leen baal di ñaanal cheikh mahamadul muntaqa sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko ba ay naalam yi mu naalal lislaam yépp màggale ko ànd ko njabootu Serigne Touba gi ak mboolem kilifa diine yi ak mboolem jullit yi di am mbégte ci fas yéene ànd ak yéen ci bis bu mag bi nga xam ne Serigne wax Mahamadul Muntaka moo joxe ndigal ngir ñu taxawal ko te moo di bisu xasiida boo xam ne dafa jox ndigal euh, mboolem taalibe yi ñu ñëw amal ko benn fan ci weeru muharram war a doon ba fukki fan ak benn ci weeru ut ci Touba bis boo xam ne it dañu koy xëyee ba takkusaan durus ak berne lépp jëm rek ci liggéeyal sëriñ bi bis la boo xam ne nag bi ko sëriñ bi yëkkatee daf koo teg loxo yi ay jëwrinam muy sëriñ xamsatu mbàkke asadul xadim sëriñ xamsatu mi nga xam ne euh, ku tudd sëriñ xamsatu tudd xasiide yi nga xam ne sëriñ bi nee na lu ci waay di yëngu euh, moom nga cay jàppale moom nga ciy dimbale sëriñ xamsatu moom it nga xam ne ku ñu tuddee xasiide tudd ko waaye jëwrini xes bu tarqiya sëriñ yusu jóob nga xam ne bu ñuy wax organisation ak taxawaay ku ne xam na jot wàll wi nga xam ne moom la ci xisbu tarixi am ñoom it ñu ànd koog sëriñ Hamsatu ànd koog Cheikh Mamadul Bachir moom Cheikh Abdul Xaadir mi nga xam ne bu xasee dégg ndigalu sëriñ bi amatul waxtu amatul benn jamono lépp da ko cay jame kon bis la boo xam ne képp ku di ab taalibe rek képp ku di ab jullit ñu ngi la koy yëgal mu war a nekk àllarba ci Touba di bisu xaside boo xam ne ndax xaside sëriñ Touba yi dafa dajale lépp ndax kitaabat yi dikrun wa shukurun wa sadaat allahu arshada xilaami wal midaad kon nag bis la boo xam ne jullit ñëpp ñoo ko moom ndax xaside yi lépp yëfi yàlla la yonente bi alayhi salaatu salaam ñaan dellu ci sunu borom subhaanahu wa la kon bis la boo xam ne ñoo ngi ko yëgal ñëpp di ci woo ñëpp ci biir réew mi ak ci bitim réew mi ñaan yàlla sunu borom kattanal nu nag ban defe ko ni ko sëñ bi bëggee ndax ni ko sëñ bi bëggee bu nu ko ni defee rek luñ bëgg lépp danañ ko am kon alarba le 11 août incha allah Touba bu ñu xëyee 8 tambali ba ba 17h incha allahu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.